général de la SAPCO secrétaire général bu parti s yoonu naataange nuyu responsable yi coordonnateur yi nga xam ne ñoo fi toog militants yi ak seen sympathisants bu parti s 2 maa ngi nuyu aussi suñu xarit yi suñu doomu ndey muy les journalistes ñi nga xam ne aussi vraiment dafay baax fuñu ñu tok ñu leen di gëreum di leen sant ci seen taxaway ak ci seen liggéey parce que luñuy def yépp ñom ñoo jëmal et donc warna aussi fuñu ñu tok ñu leen di rendre un hommage solennel ci biir loolu nag li fi dajale tay ñun ñëpp xam nañ ko moy le parti S2D bi Souleyman Ndiaye jité muy directeur général de la SAPCO mo ñëwaat pour déposer son deuxième lot de parrainage ci biir loolu tay nak jot ci mom 42 200 parrain 44 200 parrain et bi mu le 30 octobre passé recevoir nañ ko fi ci biir siège bi déposé na 68 020 parrain loolu nag soo bolé total bi day doon 112 220 parrain muy liggéey bu am solo et objectif bi nga xamné mom fixé c'était 100000 000 parrains donc dépassé nako plus de 12%. pour nak loolu nag ba tok président de la république ci le candidat de la coalition Benno Bokk le premier ministre Amadouba Ba dama lay jox sen ngeureum aussi wax liggéey bi ngay def kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ci biir loolu aussi ñun ñëpp xam nañ ko ci biir coalition bi sa diggante ak le président de la république muy diggante bu sincère diggante mag ak raq diggante boo xam ne cofeel rek moo ci ne loolu nag su ma ñëwee ba fii xam ci dara may fekkee ci ay jootaay yu bëri muy am lu muy wax ci yow war naa koo mën a wax ci sa kanamu nawle yi nga xam ne ñoom nga bokkal seen parti pour xamal leen ne aussi président de la république dafa daa am fu mu la teg te yaakaar naa ne keroog bi nga ñëwee fii déposer sa première loo guddi ba moom ci boppam am na lu mu la waxal sa bopp. mais aussi la candidat boobu mu ngi woon tourner en Thiès. mais malgré occupation yi jël na la temps jël téléphone am woo la pour gërëm la sant la ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey. donc loolu nag day wane ne àdduna ci loo nekk nekk ci fula fayda mais aussi nga gore ci nga gore ci te loolu nag dama koy jagleel ñi nga xam ne ñoo nekk si ñu ginnaaw ànd ak yow ci liggéey bi ñu gën laa jàppale xam ne jàppale la mooy jàppale seen bopp yàqal la aussi mooy yàqal seen bopp kon booloo leen dooleel ko jàppale ko ngeen xam ne parti bu créer ba mais parti bu am organisation la parti boo engagement ak conviction militantisme moo ci am et loolu nag remarqué nañ ko ci liggéey bi ngeen ne adresser aussi un message à la jeunesse parce que chapeau à la jeunesse de la SDD parce que ma euh, je vais faire un traitement spécial et particulier

kon am na considération aussi bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci yéen parce que li mu def ci man defu ko ci man ci yéen la ko def ci jeunesse Sénégal la ko def et suñu wëree parti politique yëpp wër coalition yëpp yi nekk Sénégal ak candidat indépendant yëpp doo leen gis kenn koo xam ne jël nga un jeune moins de 35 ans je dis bien na dénk ko sa pôle parrainage amut et je défie quiconque loolu dafa am lu mu wone dafa am ñoo xam ne dañu fay nekk pour jeunesse bi am ñoo xam ne dañ fay nekk pour utiliser jeunesse bi quand il s'agit des combats de la rue loolu nag xam nañ ne féetewul ci Benno Bokk Yaakaar mais ci beneen côté bi la beneen côté bi la féete loolu nag aussi ndaw ñi dañ cee war a am njàngat dañ cee war a am njàngat ñan coalition ñoo fi nekkal ndaw ñi mm-hmm. ñan coalition ñoo fi nekkal di xeexal la jeunesse et loolu président bi mu ñëwee en 2012 da ko wane ci anam yépp muy ci côté éducation muy ci côté emploi muy ci côté entrepreneuriat président de ko woné et lolu à chaque fois da koy wax lu muy def lu muy pour Sénégal c'est la génération actuelle et la génération future même ba ci pétrole ak gaz bi ñun ñu assemblée nationale président ci il ci projection yi nga xamné ne am nañ ko ci suñu pétrole ak suñu gaz dafa am a xam ñaari fonds yoo xam ne réservé pour la génération actuelle mais surtout la génération future mm-hmm. muy le fonds de la stabilisation et fonds de la stabilisation est réservé uniquement à la future génération et ces 10 pour la ci ressources yi nga xam ne moom moo war pétrole beeg ak gaz bi loolu nag dafa am am solo pour won la ne président ci lu muy mën di def ci mm-hmm. génération future bi di donc loolu nag suñ nekkee ci réew boo xam ne dafa jaxasoo manipulation bi bëri instrumentalisation bi bëri ci côté yëpp ci secteur yëpp war nañoo mën a taxawaat ku nekk ñu def njàngat def autocritique xool ñan ñoo fi nekkal jeunesse bi xool ñan ñoo fi nekkal askan wi ak ñan ñoo fi nekkalul askan wi su ma gisee un homme politique di woote ne kaay leen taal commerce yi mhm. kaay leen taal station Total yi kaay les nouvelles infrastructures yi nga xam Europe rek la am muy BRT muy TER kooku yaakaar naa ne Sénégal yëkkatiwu ko leneen ko yëkkati mais pourquoi aussi muy woo jeunes yi te su nekkee ne loo instance de décision la jeunes yi war cee toog décider wax seen xalaat pour la jeunesse pour l'avenir de la jeunesse kenn du leen ci boole donc loolu c'est un danger ñooñu war nañ le a mën a amaat beneen taxawaay ba nga xam jeunesse bi moom la war a am ci nous la bonne coalition qui est là pour la jeunesse actuelle et pour la génération future n'est rien d'autre que la coalition Benno Bokk c'est pour cela que je demande à la jeunesse sénégalaise ak ku nekk foo accompagner la coalition et surtout nous avons ñaari défi ba ñetti défi de la stabilité défi de la paix et des am solo réew mi amul jàmm kenn du tàll def dara Si nous avons ba toog di def conférence de presse parce qu'il y a la stabilité su amu doon jàmm duñ ko def mais suñ toppoon ñeneen ci seen bëgg-bëgg ci seen mbébét ñii Sénégal mu ngi ci leneen ci loo xam ne mënuma koo wax parce que gis nañ li nga xam ne mooy la sous-région donc nañu jiital Sénégal du fàtte suñu bopp et coalition Benno Bokk Yaakaar Sénégal la jiite moo tax malgré conjoncture économique bi am avec la Covid-19 la crise russo-ukrainienne le président de la République jël na plus de 57 milliards cinquante milliards 750 milliards autant pour moi pour subventionner Pour électricité bi muy ci mburu mi muy parce que tay sénégalais bu nek bo 175 francs 175 francs 200 et quelques francs yi président euh, état Sénégal moko Si jël en charge su nekku don subvention bobu pain bi 400 francs nga koy xel di ba 425 mais léegi subvention l'État état diko annoncé muy ci côté électricité muy ci côté essence bi loolu yaakaar naa ne régime ak gouvernement bi nga xam ne am nañ yërmande ci askanam mm-hmm. ñoo ko ñoo koy def et loolu amul ci yeneen pays te gëm naa ne Sénégal dans le monde tey amul benn pays bu taxaw subventionné autant d'argent pour vraiment atténuer li nga xam ne mooy jafe-jafe yi askan sa askan di dund mm-hmm. donc président dafa nekk nit koo xam ne ku am yërmande la ci askan donc loolu moo waral nag sommes suñu bopp ñoo def leneen lu dul taxawaat laxasu doon benn parce que il faut que ñu doon il faut que ñu doon pour mën gagner élection 2024. 2024 de l'élection et locale du élection législative. Mm. élection présidentielle.